waaleykum salaam wa rahmatulah ngi nuyu ku nekk si tur ak sant rawatina waa bi di ñi nga xamante ne ñu ngi toog seen ay télé di ñu seetaan mel ko internet yeeg ñëpp ñu ngi nuyu ku nekk si tur ak jaajëfal ñëpp quoi. waaw papa euh, defe naa tey boo wootee conférence de presse presse baa ngi ñëw toog nga jóge ci sa combat ak Siteu combat boo xam ne def na ñaari at ak ay weer ngeen di ko préparé Sénégal yëpp di ko xaar ñëpp di ko xaar ñu ñëw kër arène nationale macha allah. stade bi yëngutul lool ku ci ne ci yéen ñaari mbër yi ngeen parewoon ngir bëri ñu dem ba bëre kese des ngeen war a bëre yàlla indi ndog-ndog ndog-ndog bi dal ci sa kaw maanaam nga jël benn blessure boo xam ne obli maanaam tax na mënatoo woon a continuer continuer bëre bi ba médecin bi jàpp ne lii mënatul ne nga jaar fa ñibbi combat ba jeex après bi mu jeexee nag am na yeneen yu ci topp ak yu si topp bés boobu loo mën a nettali sénégalais yi tey ci li nga dund kera ci bésu làmb jooju ba xaañu bi yegg si sa kaw waa ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di di masuwaat ñëpp di masu sam bopp di masu ñëpp ndax euh, mbër mu signé contrat bëri moo tax nga signé contrat te ku bëri aussi ndam moo taxoon moo taxoon jub daal li am nag man bugguma ko rafetlu ma ko ñaane moo koon yàlla ni dama sañoon dañuy ñëw ñëpp bëree yàlla dafa ñu ndam ku nekk ñibbi sa kër ci ah jàmm ak salaam moo ñu taxoon jub waaye li xew foofu ku ne gis na ko bon yàlla xam doy na quoi suñu yéene daal moo doon ñu livrer un combat boo xamante ni. ku ci am tamit gars yi ah. Mm-hmm. léegi da nga dañu la dóor dara ci li ñu gis ci ay images mooy benn. mbir bi fi ñu jàpp ne fi la mbir ma jóge waa da ngay xool caméra yi fële voilà wala ma def nii fi mbir mi jóge mooy maanaam ci li ñu mën a jàpp mooy sarax bu nga xam ne da doon génn góor a soog doon ko yóbbu bokk ci ñi nga àndaloon bi mu koy yóbbu ñu gis ne dañ ko wàññi police yi indi ko nga jël sarax bi dem yow di ko yóbbu bi nga koy yóbbu ñuy gis ci imaginer que da nga mel ni ci biir géwél yi sa tag nga jaar bi nga fa jaaree loxo jóg bi loxo jógee nag ci la li am am papa mën na nettaliwaat scène bi ni mu demee ak est ce que papa xam na ki ko dóor li ko dal waaw bon bu ñu commencé ñëwee ci làmb jeeg day yomb. Mhm. ndax avant làmb dafa am lu ko jiitu. lu jiitu comme lu ko jiitu yoo xamante ni yaakaar naa ba presse bi yéen a ba mu foon. Mhm. ñu ngi commencé marche Ndiaye. waaw waaw marche Ndiaye la commencé. bu ñu ñëwee ku ne gis na Siteu sotti na ma ndox saaga na ma bu max na ma man li ma waroon nag moom bind naa CNG correspondance jox nañ ñu war nañ euh, jot nañ lettre mais amul benn suivi yooyu nag lu jur lii ci la topp. ñëwaat nañ Iba Mar moom ay coow yu ndaw ndaw boobu léegi ay coow ba keroog lii mën a am li mën a am nag mooy man du du ma du jël kii bi rek teg ko ci benn loosu nit dama koy teg ci ñi ko sequl ñëpp ndax lu amul organisation rek baaxul ndax man bi ma ñëwee wax ma la ma de bi ma déparé fii bañ dugg Pikine ba rond premier rond bi deuxième rond bi lañ gëj am jàmm mënoon naa bañ a dugg si stade bi booy comme ay kaña la ñu def normalement normalement Euh, organisation moo na nekk ba de tell sorte bu ñu déparé fii war ñoon xaar police parcelle police parcelle certes ñoon couvrir ñu mais daf ki organiser làmbam war na mën a ne gars yi dañuy jëli place wu këram accompagner ko ba muy dugg stade foofu am nañ fa presque une heure temps yoo xamante nii doo xam fu xeeri jógee yàlla ñu dimbal rek ñu dugg mën a livrer combat bi ñu dugg see aussi ma ñëw naa fekk naa si te teg ci mbukaayam ñu ne ma fii ngay toog ma tel ci ma teg ma suma ay bagage li ma njëkk a def mooy dama bëggoon dox tàllal ba ne la ñëwaat ma doxee même pas 7 mètres barrière am ma bëgg a jàll ak policier wax dëgg yàlla gentiment poliment dama ñu ne ah, dañoo jot ndigal ne waroo traversé fii ma ne ndax la ñu ne ma ay géwélu Cité ñooy tëgg ñoo toog feene dañuy bañ danger ok anyway kenn gisaatuma ma romb foofu ba keroog ma war a tuus ci laa traversé dem tuus bi ma ñëwaatee dem bi ma fa yóbbuwaat mooy bi grand combat di sunu grand combat yóbbu ko jox ko micro central bi ak tambour major central bi ma yónni góor a soog da ko yóbbu ma affaire bi nga joxoon ma ko diw ak diw bi mu demee jox ko diw ak diw moo dem ba foofu noonu bi muy ñëw waa ji kar na ko man maa ngi maa ngi boobu maa ngi échauffé gis naa ko waa kar na ko non seulement tamit policier tamit il faut tamit bu ñëwee fekk coow rek bu ñëw rek baram patam patam patam booy door nañ góor soog ay coup booy door nañ góor ay coup saax saaxe ko policier yi ñëw liggante ko man comme ma am suma combat ma am sama bës ma dem jël sarax bi di yóbbu mais bi may booy jub nit nit ku war a nit ku bëgg def nit ku def jàmm boo ko jub di nga xam ne kii da may wala du la may see jiili rek xam naa ne kii dafa jub pour attaquer mais tamit man mënuma moom sama bës moom sama couloir jiili na ma benn kun tuuti na ma doo jaar fii xalaatuma ko sax Siteu sax bu nu moon doo jaar foofu noonu te muy sama couloir dama fay jaar par force ak ay bàyyi jiili yoo xamante ni bokkuñ bokkuñ defuñu dara ci làmba ma ñëw traversé gis naa ne mu jug départ na bu ma jël di attaqué am lu ma sànni keneen ki bu muy tuus bu muy tuus euh, beneen waay tamit di sànni sabar bi mooy loolu heureusement yàlla daal moo si def jàmm ndax yi yi yan woon yëpp door dóor ko bi góor sax arrêté bi franc arrêté bu daloon ci man heure bi waxatul ko kon ñuy wax leneen comprendre nga mais nag dafa am loo xamante ni yëfu maa tey da cee am ba mu ëpp ba mu ëpp ndax réew dem ku ne mën nga reew ku ne mën ngaa reew waaye bu ñu dajee fu ay nit daje ñu wane lu mu rafet rafet sax deux heures temps trois heures temps ñu wane tuuti yar rek ba ñibbi suñu ay kër affaire bi noonu la demee sama couloir la man maa bàyyi bàyyi ji li toog fa su ma neexoon dama naan doo fi toog mais amul problème Siteu romb na ba 5-5 ñaata yoon kenn wax ko dara ñoom ñu fii doo fi romb pour lan fu ñu ko teg ci xam a dégg rek mais ñëpp mën a réew amu leen ñëpp mën a réew. maanaam moom man xaw ma lu ma dóor parce que ku dóor nga ne det toog mooy jël nga ko jël nga ko boo xamul lu lay dóor tey affaire bi ñaari coup la am na bu njëkk ñëw boo xoolee xaw ma xeer lu xaw moo daanu samay tànk. waa ji sol noir blanc bi muy ñëw nii fekk na maa ngi liis boobu maa ngi liis dal na ma seet nag mais effet bi xam naa warul bari noonu mais bi ma njëkk a dal moom mooy bi ma tourné nii bi bàyyi ji li ne luy daw ba tourné waat ci laa jël benn coup boo xamante nii xaw ma xeer la xaw ma ban objet la boo xoolee samay suuf tànk mi ngi fay waat waaw CNG am na faute mais tamit CNG ñun dañuy jot comme quoi que ñi ñi ñu bàyyi fi ñu toog ay nit lañu ñoom xam naa CNG tamit bi ñuy bàyyi fa ñu toog dañu yàpp dinañ yaakaar ni ay nit ay doomu aadama ay ñu conscient ñoo toog ñoo xamante ni amul problème yow bëre woo bëre waa doo musoo bëre musoo def nangam yow bu amee promotion bay ut ut ko si bi wala si sa comme ni ko bàyyi dem bu amee pagaay mbay am ko keneen am ko papa jaay coppe rek mais kenn xamul loolu benn promotion nga am pour Siteu ñëw bu Siteu waree ñëw nag yaa gën sañ Siteu sol drap boo xamante ni Sénégal bi xaj ci amul sens maa ngi boo bëggee promotion da nga ut da nga utal sa bopp Siteu moo xewle yow xewle woo Siteu moo xewle moom xewlewul promotion am na ko utal bopp waa loolu wax ji amoon dimanche mooy wax bi nit war a wax wax ji amoon dimanche ñu koy jël comme ça ci Modou Mbaye Modou Mbaye nit ko xamante ne ni ñëpp dañ ko estimer ndax papam daf fay liggéey lu lu war nit ñu bëgg ko papam daf fay liggéey El Hadj Bécaye lu war nit ñu war a téye Modou mbay mais euh, recto verso bu mu def ni man xaaruma ko woon ci moom tey rafet rafetlu ma ko ay Papa warul jaar fi warul def ne te nga nekkoon ci biir stade bi xam li xew ci stade yëpp wax li nga war a wax dimanche ñëpp ne lii mooy yoon ñi sore ak ñi jege ñëpp mardi nga ñëw nga changé carrément Papa moo war a def nii moo attaqué nangam moo def nangam non Modou Mbaye may ne waaw yow suma rax nga ku la yéene laa ku respecté la mais sa wax wax bi nga wax Bantamba tegoo ko fenn tegoo ko fenn ndax yow loo mën a am ci la àdduna sa maay bi moo la ko may Siteu mënu la ko may Modou Lo mënu la ko may Papa Sow mënu la ko may sa métier nga nekk fexeel sa métier bi nag jaamu ci yàlla da nga ciy jaamu yàlla ni ko sa papa defee ba àdduna yëpp bëgg ko moom fa laa lay teg ndax li nga wax nii moom du luy du luy du luy du luy rafetal te aussi du luy defar. maanaam yow fi sa yoon. Hmm? man ma waar jaar foofu man ma man mi am bés man kay man maa wax naan bàyyi ji li mën na ma miine fii mën na ma sotti nangam ma def nangam hmm. ma ne ko bàyyi ji li toogal ak jàmm. Hmm. man li may réglé si géew bi laa koy réglé na toog foofu bu mënoon am surtout sax bu neexoon ñu toog nekk ay nit bu leen mën a romb ñu romb leen va et vient amul problème. ci keneen ki ñëw jot jekkali yeneen ñaari bi ñu ñëw kii franc moo téye kenn ki góor soog moo téye kenn ki yàlla def ci sutura mais nag mooy loolu. Hmm. moment bi nga man xam nga mënu ma préparer sama combat boobu ba léegi man sama yéene woon mooy keroog ma ñibbi si ak ndam gisuma woon leneen lu dul victoire ndax it bon nit ki li nga liggéey rek moo la yóbbu fi nga jëm. mais nee nañ pare woo moo tax gis nga. Siteu Siteu lu mu fi indi maas ak biir bu rëy ak ay ween Siteu loolu la fi indi da tuuti woon mu ñëw yokk maas indi ay ween ak biir boo xamante ne mu ngi fi tool da ngaa tegal dafa entraîné du mu gëm rek la man toujours sama man sama ligne laay gaari toujours. entraîné lu ma entraîné am doole ñëw bëreeg moom. léegi kaw Papa Sow ak ndënd bi. waaw mais bon ñun dañoo nekk suñu ay kilifa ñu toog waxtaan def li ñu war a def teg ko fi ñu ko teg te it bon pour man pour man man man avant maa jug ak suma ay mbokk promoteur dafa tëgg làmb bu tëggee làmb dafa jaay ay billets jaay pay-per-view ut ay sponsor am defe naa ne moom bu journée am yàqoo moom moo a njëkk a saisir procureur moom ndax dafa dafa lekk ay alalu jàmbur mais waruñu xaar Papa Sow sax di saisiru auto saisiru pour mën a diw ma ma gaañ ak diw ma gaañ ci porte plainte quoi est-ce que nga. pour man promoteur bi en personne alaaji Mbiré ok pour man promoteur bi si boppam dafa am ak ak boo xamante ne dafa ameel ak ay client mooy ñi mu jaay ñi mu jaay billet ñi mu jaay pay view ak sponsor bi ko jox xaalis moom en personne dafa doon bind plainte am déposé ko promoteur bi CNG bi en personne convoqué ki def loolu tamit def def ko ay daanam te bokkul ak man sama man li ma war a def man combat bi dañuy nekk gum ci luñ toll gum luñ toll gum mooy loo nekk ci problème boo xamante ni ñu ngi jug ak yéeg a wàcc a wàcc CNG woo lu mu ñuy wax xamaguñu lu mu fay jëlee loolu te instant bii bu nekkoon écurie Fass wala ay mag su mu ko ko. Mhm. lu mel ni du ko dal. Mhm. commentaire yooyu noonu yeneen nit ñi def ko moo ñëwaat foofu ba tey waxu Modou Mbaye moo ñëwaat foofu. mais Moussa Gningue mel ni Moussa Gningue. parce que man pourtant ñi ma àndal nag ñi ma àndal wax dëgg yàlla ñu mature lañu. ñu mature lañu nit ay kilifa lañu ay responsable laa àndal ñu teg ci yoon entraîné ma ànd ak man. bu doon sax doon ma gis ci làmb ji may fër fëri mel ne picc bu xamul fu mu jëm mais au calme toujours au calme bu ñu gis fi mu war a yem laa yem gérer fi mu war a gérer mm. bu dee ci wàllu woowu noonu ñoom bu ñu defaatee tuuti euh, ci ginnaaw mbéygéey mbéygéey bëri na arène sénégalaise keroog la toj. Mm-hmm. am na wala amul. Mm-hmm. écurie Fass a bokk noonu. Euh, Balla Beye numéro 2 ak Moustapha Gueye. seen làmb seen làmb toj na Faye Demba Diop. deuxième combat Ousa Ba Ousa Jules Balde. Mm-hmm. seen làmb toj na Iba Mar Diop. kàdd gi seen lamb toj na Iba Mar mais du loolu Fass nag ay ndaana fa nekk ñu ma respecté la ñu. ñoo xamante ne dama ànd ak ñoom pendant des années et des années dama judd sax fekk ñuy ànd ñu respecté la mais wax jooju noonu boo ko bëggee analyser da dangay da ngay am lu muy indi. Mm-hmm. te toujours rek Modou mbay moo indiwaat loolu yëpp te loolu loolu amul fa wàll. koo mënti àndaloon ci àdduna dafa am ñoo xam dañoo mal intentionné bu ñu bëgg def dañ koy def yow mënoo si dara bu doon maa uti coow li ñu mën a wax mais coow li dafa am ñoo xam ne ñoo ko ut si. Mm-hmm. loolu lay coow li mais nag du ay càgginu Fass ak ay càgginu Guédiawaye wala Pikine non ay ay. wóyu lañu ay microbe yoo xamante ni kenn xamul luñ doon dugg ci biir làmb ji bëgg ko yàq amul leneen. Hmm. même nekkee foofu sa voie la comme ni nga sax. ndax Papa Sow amul regret que bu regret ci li nga xamante ne def ko keroog forcer bi ngay jaar ci biir ci biir xam nga xam nga làmb regret moom mën na ci am ndax ku sañoon di bëri di livre livrer combat di nga ndax ñuy bàyyi seen nit yëpp toog seen kër gi seetaan ak ñi bàyyi seen tey ñëw ba esaat ak risque femme yëpp di seetaan ku sañoon nag di nga bëri combat bi di nga bëri combat bi mais regret bi ma ci am rek mooy bon maa ngi masawu nit ñi ci loolu mais tamit sarax ak mystique dafa bokk ci làmb dafa bokk ci làmb loolu boo ko deful woon ñu tere la ko def rek mën na la empêcher nga concentré wu ci biir géew bi yàgg Siteu sarax bi defal ñu ko avant avant grand bi loolu da ko war a def dama koy def boo maatoon suba ma war ko dama koy def xëy na ñoom bu subaa bu paasoo waree jaar foofu dinañ ko bàyyi mais man sarax mañ làmb ji ku ne gis na ni eh, mais na mun ñu bàyyi Siteu mel ne mel mel benn nit ci làmb ji rek fu ko neex dem lu ko neex def man paasoo ñu tëj ñu si benn coin ma mel ne benn malfaiteur boo xamante ne nii waaye du ma ko du ma ko nangu nag il faut nit ñi bàyyi ma libre tuuti aussi waaye. papa dañoo jël bàyyi ji. waaw ne waaw yéen a gis image yi naa la man bu ma jub bu ma jëlee sarax ba jub si xam naa ne kim kii nii ñoom wallahi azim xooleen image bi am na waa joo xam ne bu ma séenee may ñëw rek bi waay jël jële ki moom armé wu na ba pare taxaw nga xam ne kon ñii dañuy attaqué mais man su ma xasee dem damay dem bu doon ay gis moo fa nekk sax dañuy dugg ci romb bu dem waaw. si ndax euh, Lamine jël na ko. ñu mhm. mhm. digg géew mhm. moo gën ngay jëflante ñoo xam te ni. bokkuñu ci làmb tey yow communication si est ce xaaroon nga ko ci nan nga gisee ko. waaw man rafetlu ma ko bu doon lii da ko arrivé non seulement ku ko def kon ci may mbokk di leen jote dootul ànd ak man làmb 1 su doon mbokk ko def ko ke pare naa ànd man ci làmb te it bu làmb jeexee ay nit ak nit ñu séq deret ji doy noonu mën a tuuri ci géew yow nga mën taxaw di sib naan da ngay sotteeku say gars te xam nga ni làmb dootul am Siteu ku xool na mu doon feccee track track bu mu am ak keroog bu mu xamee ni làmb ji jeex na du am wute na ñi xam nit xam na ñu bëri xool nañ ne ute na quoi nga xam ne lii ute na ndax mënoo ànd ak nit mu am gaañu gaañu bu doy noonu nga mën sotteeku taxaw naan ay tàppet la mënoon na bëre ci mu kaayam la dem ñu gaañ ko mu génnaat déet non may booy du noonu boo ànd seq ak nit ba ak gaañu gaañu am ak lu mënti am masawu ko euh, ñaanal ko mu wér ak jàmm ak salaam man loolu laa doon xaar ci moom mais li mu wax moom wax dëgg yàlla xaaruma ko ci moom en tant que ñaari ñaari frère quoi. Mhm. ko. waaw ah. waaw mhm. mhm. ah, wax dëgg yàlla bi mu xëyee woo na ma set ma noo def nangam nangam ma ne ko maa ngi sant mbaa garaawul rajo bi lu mu génnee ma ne ko ah alhamdulilah euh, egseegul. Ah, mais alhamdulilah maa ngi sant bi rajo bi ñëwee aussi tamit affaire bi fi ñu yaakaaroon ni ci biir yàlla mi ngi ci def jàmm daal ba tey maa yow nag mooy bopp moo garaaw mbiru bopp kenn xamu ko waaw mbiru bopp kenn xamu ko mais nag sant yàlla quoi. Euh, papa gis nañ nga dem si médecin bi. Hmm. Hmm. njëkkee njëkkee si borom tëggkat yi ndax bu doon foofu amul fu ñu di mën a jaar ñun groupe bu ñu tuus fa jaar ñun groupe groupe groupe groupe groupe fa lañ jaar dafa am couloir bu des si ginnaaw ñoom fi mu am na couloir ñoom ñoo leen du ngeen fi jaar nekkul danoo dugg seen biir de il faut gars yi xam loolu ñu nekkul dañoo dugg si biir sabari romb noonu la ñoom fi ñu teg ci ginnaaw dafa des couloir des na vert foncé ak vert clair des na des na lu ngande mais ñoom ñoo ne doo fi jaar mais day kumba loolu loolu kenn kenn waru leen ci bàyyi kenn warul bàyyi géwél géwél bi moom géwél li nga xamante moom bu njëkk defar defar defar lañ xamante moom mais ku jóg pour yàq non dañ la war a xoolaat des na ci place place bu ëpp lii li ëpp lii foo xamante ni mën na fa jaar mais dana ne mais réewande rek doo fi jaar te bu doon benn billet ngay jënd yow fi nga taxaw sax nga moom village bi yëpp nga ne doo fi jaar mais loolu kenn mënu ko kenn mënu ko wax bu jëmee ci leen lu jëm noonu Ndeye Comba keroog ku ma xool xam ne kii dafa ñëw pour bëri si pour bëri si mooy waral rek bi ñu waxee Siteu moo toog fee ak nit ñoo toog fee may la toog ndax bëgg jàmm bëgg mu jeex ci jàmm bu dara dul dara rek tey bu ñu téye pendant deux ans mois rek dafa doy mënoo dem dëj doo dem ngénte ay xew yu bëri day am combat bi ñu programme ko da nga mujjee gëm da nga dem mujj yi sax danaan ne kii amul yitte wala dafa ñoo xeeb xam nga deux ans deux ans ko benn nit bon man sonnoon naa pour ñu génn si combat bi nekk ci leneen mais Siteu boo gisee ay nangam nangam non mais Ndeye Comba combat bi dama ko jël pour gagner maa Siteu mënu ma gën a bëgg combat bi Siteu mënu ma gën a bëgg combat bi ci àdduna déedéet. waaw waaw médecin bi bu njëkk daf may laaj sama avis ma ne ko damay bëre damay bëre damay bëre takkal ma ma bëre. coow li bëri coow li bëri ma dem ci mukaay li ñëw ma dem ci mukaay li dara bi di gën a sànniwaat ñu ne ma da ngay ñëwaat médecin moomu ma médecin bi dafa bëggoon ñëw foofu foofu am ay engouement coow li bëri médecin bi ne du ma mënu ma génn ndax fee wóorul indi leen Papa Sow mu ñëwaat ma xoolaat ko bu ñëwee dama xoolaat mu ne ma non affaire bi ba xam yaa ngi may gis ma ne ko maa ngi lay gis kañ maa ngi lay gis ma ne ko bu mu paree bindal ma ma dem defi scanner loolu rek laa ko boo boo paree fii nga ma ma dem defi scanner mais man dama doon bëre su ma bëroon ba pare daan Siteu ànd ak samay ay mbokk dem hôpital faju mais lu tax lu tax ma doon kii noonu bon ma toogee di kii dégg Siteu def di yëngal foofu noonu mais tamit mais am loo xamante ne nii mënul ne. mais gis nañ ku dóor xam maa ngi dégg ñu naan ay Siteu naan ma xaañoon ay nangam nangam Siteu xeer bu ñu ko xaañ doyul nii te xeer bi def na vingt wala vingt cinq mètres pour egg si moom ay supporters am ñoo xaañ nag ay supporters Siteu keroog ñoo xaañ si tamit bëre guy gi te distance bi def na ay vingt cinq mètres wala trente mètres pour mun a ñëw dal ci bopp Siteu man ki ma ki ma xaañ maa comme maa ngi nii zéro mètre mu jël objet bu diis dóor la ko nga pare pour bëre ñaan la ay nangam nangam nangam tey bon yow boo bëggee bëre say mbokk du la bàyyi ngay bëre ndax ëllëg lu ci mënti am médecin yi dinañ ne kii non seulement fi ngeen ko bàyyi du yoon de lu ci mënti am it bon responsabilité staff bi lay nekk te bu baax staff bi xale la staffu cuune boobaa fa leen leen di blâmer ak lu mën di am boo daanee Siteu naan da ngeen cuune ah, bu la Siteu daanee da naan da ngeen cuune lu si mën di xam loolu leen wax ah ay cuune leen ay xale leen xamuñ dara fugg leen toog xam nañ ne lii mënul ne Siteu xam ne nii day kumba Siteu xam ne nii fii combat mun di fi am war mu firi noonu a la. ne papa moom moo song lii a dóor. waaw ñenn ñi moom ñenn ñi boo ko déggee rek mooy fi ñu ñëwaat duñ si ñëwaat. man sama sar laay defi ki may ki may jub si noonu xam naa ne kii dafa jëpp attaque ma yéen a yee vidéo yi taal leen vidéo yi ngeen xool bi ma ñëwee ba jege leen di nga gis waa ju téye sabar avant dara xew armée armée nii nga xam ne kii ñii danoo pare pour sànni ñaar ñu bokk ak ñu bokkal ak tambour major ñaar ñu leer naññ ngeen gis ni kii day kii day bu ma bu see beneen pas mu ñëw mais reculer am na te xamante recul amatu ci